dèjà ñoo ngi toog Fatma Diagne te Fatma Diagne dem Alioune Seye si ñoo di bëree nga toog si nen lan moo taxoon nga toog si nen démb. waaw c'est le sang deret la. waaw ñëwagu ndey baay. Ah. waaw mu tuddee ma taawam mu nekk suma xarit te combat bi man d'accord ma ci woon. dëgg la looloo taxoon rek toog koy bakkan. combat fan la la yàggoon. non parce que moom dafa bëgg làmb kon li ma waxoon démb ci plateau bi rek. waaw wallaahi bu dépendre woon ci man. gis nañu Alioune Sèye Junior combat am ak Siteu bu Ngor. daan na ko mais amul apporté lu ko dara te xam nga baax li ma lay wax. da nga ko doon jël pour relancer wu. te combat su ko daanu woon day bàyyi. yàlla suturaal ko. mu jëloo boppam combat bi. entraîné ci moo doxal boppam moo def lépp. wax dëgg yàlla parce que ñu naan ni que lu mu bëgg da nga koy bëggale. nekkul nag li mu nekk suma mag moom moo tax. dafa bëgg làmb mais làmb xëy ko loolu nag moo tax ma yërëm ko ci làmb. waaw. doo ko yërëm ko mais xam la bëgg te am na lu ma promettre li ci kanam daa wuli gët mais si tabu ngor maa ngi koy félicité du ma ko xale la mën na bëre mën na mobiliser te xale bu yaru la barki alxuraan man yaay booy rek la may te nekk na xale boo xam ne ne combat venint. bëreeg pointe bëreeg pointe bëreeg Midiane Faye xam nga lu bëreeg koy bakkan respecté ay entraînement am gëmaat lamb kon ni mu ko bëgg gëmee woon au début le reste nag yàlla suñu borom moo yor ndam gis nga jàppale du force nit doo ko mere ci alalam nit ki yow dangay jàppale sa bopp ku la fekk jàppale la ndax lamb gis nañ ni mel lamb dafa fiir lamb dafa metti boo gisee lamb ñi ci kaw ñoo jariñu mais ñi ci suuf jariñuwuñ mais kon li may wax rek lu bu dee wërsëgal dina si jot ndax sama sëriñ nee na àdduna dara yàq dara jaru wërsëg muy lu néew am lu bari dañ si jot bu sa wërsëg jeex rek nga faatu mais encore une fois maa ngi koy félicité di ko wax moom it na gën a jàppaat ndax démb am na ñett promoteurs yu ñu woo pour ay combat parce que nee naa ko da ngaa da ngaa jafe ak lu mën di xew mais bu daanoo année bi moom du année blanche day bëri kon doomu loolu journée bi dañoo bëgg combat bi ba doon ko bëgg Alioune Seye Junior barki alxuraan ñoom ñëpp jàpp nañ ci mbër yëpp cat ba cat maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen wax gis naa taxawaay. son Pierre Papa Boy Djiné daa war a bàyyi wala warul bàyyi. non Papa Boy Djiné warul bàyyi làmb parce que xam nga lan la tonton euh, Bakar boo gisee Papa Boy Djiné li ko des ne Siteu bu ko. jërëjëf combat la.